kan moo may tafal gémmiñu Chérif <laughs> Chérif Diaby mu nekk ci suñu nopp bi nii rek mel ni yamb ah. dugub bi ngay laaj chaque jour naan moom yaa ko fi commandé. aywa un jour au Sénégal un jour dans le monde tey jëlee ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bokk na ci li ñuy fàttaliku benn xibaar bu tiis nag ñaari at ci ginnaaw kii di euh, Babacar Touré nekkoon taskatu xabaar bu mag a mag bokk ci ñi taxawal groupe Sud Communication mu làqoon lu toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent euh, génnoon àdduna loolu la ñuy euh, fàttaliku ak leneen ñu dellu siwaat ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet 2019 ci la ñu faatoon commandant bu brigade bu gendarmerie bu Koumpentoum major Tamsir sànni gannaaw nag weccoo sox bu doxoon seen diggante ak ay samba boy yu bëggoon a dajji bureau de poste bu Koumpentoum ñooñu sax di samba boy yi ñu mujjal leen a teg loxo ay bis gannaaw bi. njiitu réew bu France ba woon Nicolas Sarkozy ñaar fukki fanak ak juróom-benn ci weeru sulet 2007 nag ci la amaloon ab tukki nemmeeku fii ci Sénégal ba mu yegsee nag mu amoon ay kàddu yu mu yëkkati woon ci daara ju kawe ji ñu duppee Cheikh Anta Diop kàddu yooyu nag ñu bari ñaaw lu ko woon mu doon àddu nag ci ni Afrique delloo gannaaw ñuy fàttaliku bomb ba kalaate woon ca parc du centenaire ci jamono yi ñu doon amal ay Jeux olympiques ca Atlanta ca Amérique ñaar fukki juróom-benn ci weeru sulet 1996 ñaari bakkan rotoon ca eh, téeméer ak fukk ak benn ci doomu aadama jëlee woon ci ay gaañu gaañu ñuy taxaw tey ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet 2020 bis bi taskatu xabaar ba Babacar Touré génne àdduna mu toll woon ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent eh, sos. groupe Sud Communication jiite woon euh, conseil national de régulation de l'audiovisuel euh, CNRA ñu bàyyi la ko maison de la presse bu ndakaaru Abdoulaye Thiam rédacteur en chef euh, Sud Quotidien ñooy àddu ci ndono li fi beetee bàyyi. Babacar Touré dafa nekkoon nit ku ku ñu mën a définir comme nit ku multidimensionnel. maanaam d'abord journaliste la. loolu lay tiitaroo loolu la wone ci biir dundam. parce que militant gauche la militant gauche la militant la boo xam ne dafa dugg ci presse mais militantisme bu fort moo nekkoon ci moom poste 68 euh, tard la aussi créé groupe sud communication amoon xam-xam euh, macha allah amoon entre gens nekkoon nit ku xarañ nekkoon un très grand humaniste nekkoon aussi nit ku baax nit ku tabe nit ku am fidélité ak loyauté surtout loolu euh, nekkoon aussi nit ko xam ne euh, askan bi population bi peuple bi moo taxoon mu jóg lu mu doon def yëpp pour loolu la euh, moo tax ñu bari dañuy naan contribuer na ci alternance bu am Sénégal en en 2000 mais en faisant justement son travail le travail du groupe Sud Communication mais ñu bëri aussi dañuy naan contribuer na ci deusième alternance bi parce que ñëpp ñu ngi fàttaliku euh, éditorial bu mu bindoon euh, pour sur le ticket. jogantewuñoo kenn wujjantewuñoo kenn li ma xam te ñun looloo ñoo tax a jóg ndax li ci def yëpp dañ koo def pour euh, feetal xëy na gris bi mais ñun information rek lañ jàng moom lañ xam mooñu tax a jóg. informationnel bi ñu tax a jóge mooy li nga xam ne gëstu nañ ko ba mu wër ba mu wër ñu wax ko te seet nuñ koy waxee. Babacar Touré euh, Alaaji Malick Thiandoum yàggul dara benn fan ci juillet ñu ngi doon waxtaanaat ci moom mooy bés bi ñu doon euh, fàttaliku lancement programme euh, Sud FM en 94 amoon na ay témoignages yu bari itam yu ñu jagleloon moom Babacar Touré nga xam ne jiite woon na CNRA itam bokkoon ci ñu sosoon li nga xam ne mooy syndicat bu njëkk bi ñu tuddee woon ko UNPIX ba muy door. un grand professionnel un grand professionnel un grand monsieur de de l'information et de la communication. xam ni pionnier la ci wàllu démocratie euh, ak liberté de la presse rawatina ci ci ci réewum Sénégal et même au-delà du Sénégal euh, de l'Afrique parce que ku ne xam na ni Babacar c'était un panafricain euh, mu nekk nga xam ni wax dëgg yàlla côtoyé na bokku de générations de journalistes ñu bëri également dañuy inspiré wu ci rigueur ci professionnalisme am donc mu nekk ku nga xam ne côtoyé na également plusieurs régimes mais c'est c'était un homme de principe c'était également un homme de droiture bu nga xam ne esprit d'ouverture lecture am na ko euh, ami tamit capacité d'écoute nekk un homme affable moi j'ai eu à le côtoyer il a eu à me recevoir mm-hmm. à me prodiguer des conseils dans euh, ci wàllu liggéey bi donc mu nekk nga xam ne lu ñuy wax rek naqar la fi bàyyi mais bàyyi fi gàcce il a mm-hmm. laissé également un héritage énorme mm-hmm. je pense que avec le groupe Sud FM et aujourd'hui bu ñu demee ba paysage médiatique sénégalais nekk un paysage pluriel on le doit en grande partie aux doyens ñi ngi fàttaliku ca ngeexoo ba président ko jaale ji ci la jëloon décision jël maison de la presse tuddee ko ko également li nga xam moom la tuddee également journée mondiale de la liberté de la presse moom mooy ki nga xam ne ci ñi ko xeex ba muy am ci la bokk donc li mu fi def ci œuvre mënuñu ko wax ci plateau mm-hmm. mais en tout cas un grand monsieur est parti deux ans déjà et c'est comme si c'était hier. c'est comme si c'était hier euh, Chérif di ko ñaanal ba tey. waaw mm. di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana gis nga phrase bi mu mujj wax xam naa bu yàlla defoon tey mu ñëwaat fii dina am lu ko ni hmm. presse sénégalaise tëddoo ak taxawaayu di ko yàqu ak ñeneen ñi euh, médiateur la woon aussi hmm. maanaam nit ku am sutura la lu bëri hmm. ay problème wala rek na ko ci réew mi te kenn mësu koo xam ni moom Babacar Touré moom moo ko doon réglé surtout ci wàllu politique bu jafe-jafe daan am dina sol daalam dox ci tànku jàmm ba mbir yi delluwaat ci yoon kenn du ko xam la sous-région aussi gis nga ko ba mu demee ci sax leen gis ay xaritam yu mel ni ku mel ni ñoom Alpha Condé ku mel ki nga xamante ni mooy indem si yàlla IBK ñoom it nekk ci jafe-jafe mais mm. nekkoon na foofu aussi ci jouer bu am solo ci dans la sous-région ouest africaine muy koo xamante ni kon taxawaayam daal en tout cas fii ci Sénégal manqué na fi euh, vide boo xamante ni moom mm. dina jafewaat gis ku mel ni Babacar Touré ci wàllu régulation aussi wax ko. Mm, nekkoon na aussi justement au niveau du CNRA aussi liggéey bu am solo bu ñu mm-hmm. Marcel. Euh, je pense que le témoignage unanime hein, euh, un homme multidimensionnel et puis bu musul tay ci euh, ci wuti ci xam-xam ndaxte ba mu bokke ci promotion 79 bu CESTI gannaaw loolu mu obtenir diplôme en sociologie ak sciences politiques journalisme ak communication bien évidemment titulaire d'un certificat de maîtrise d'anglais et puis amoon casquette yu bëri homme d'affaires en plus d'être un, un journaliste bi nga xamante ne il n'avait plus euh, au fond rien à prouver liggéeyoon ci euh, le soleil par exemple jaaroon na fa et puis euh, bokkoon ci ñu euh, ñu fondé woon euh, quotidien bi nga xamante ne mooy Sud Quotidien donc bi jël le tour Sud Quotidien en 1993 donc autant de faits mm-hmm. yuy yuy firndeel ne rek le grand homme qu'il fut et c'est mm peu de le dire mm-hmm. et puis tey je pense que maison de la presse bi ñu ko tuddee firndeel na lépp en fait donc yàlla na ko yàlla xaare aljana amiin amiin ak ISIC di institut supérieur bi nga xam ne fa la ñuy jàngalee wàllum journalisme également ak communication mu nekk tamit ki ko sos di ñaan sunu borom xaaree ko aljana moom Babacar Touré léegi dañuy sóobu ci xibaar yi ñu andi ceeg ki ne dem